yaa قد كان ينوي الخير لو كان مغفرا يجاور ربا واهبا متفضلا بغبر ويلقي الهبدا من كلها يرى هياتي رموز كلها وإدارتنا تفسر مهماذا لك القبر بوصرا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 وربي ما يسلم برحمة توب لن تتروية سكتت أنا وجه سودان لا إلا الله خيرته باي برحمة وجوبنا فسلن أدنا بقي الله بنير رمائي seqoo di seen mu rabbi mooy Sidi Barahamaay yàlla daj bàkk lislaam bi jëbal ko baraham ci jinnam bi dari jëbal bay baraham yàlla mi dari ne sërël ak feñ na sëraan ñay wi xalla babal toog caa tax maj sobi muñ leen fattu leen bon mi baramaay fokk leen seen bokk arifi ñooy seen doomi baay jëfe sariatu moo neex baramaay fonk leen seen mbokku aarif yi ñooy seen doomi baay jëfee sariyaatu moo neex baay baram lab leen ci pays bi te bàyyi mbokkaale baay bu gul loolu mbokkaale day yëngal aras dere ki maj soog la ka waamee dox ci askan ci coono lay dee xibaar yi sant nañ nga ñi wetu baram naka dale ci mama Adama ba ca Abdoulaye li fi ma sa yëngu sabal bàyyi barama bàyyi barama géej ma mbulan gi ñes ku la jéemaas ay xam say alqawm maxrib bi doomaas bay barama bay barama bu ne yàlla si barama ma coppu ndaw warlom kakene ayi jani singana mahjomi wattolen nongoy sudi barahama kidan garde suuf seeg asamaan si xam leen ci moom teggin mahjomi xam ngeen lépp xam loon moom mooy na barahama garab na woy naa lafitim na duniya si mañu guy guray kogoy baay barama man am bon arab bon arab su ma jàngoon arab bamba sañ leen wax tey li bay doon suuf si tabbu asamaan si si di barhama waaye jëmam ja paase na jëmi xut bu bay wax ñu ko doon fekk tijaan la ñuy idoo bay barhama bay barhama Ibrahima Diouf santal kilo roose bana sa xilaaf fadl jami bidoma sëñ Barahama xaatir naa ba gërëm say naa ne suukar ci biir meew baay baay mu jub ne ku ko fekkee wutoon bul wedde ci faram ma mahjub yi dof ngeen dof ngeen na ndoxam essence biñ ko fayee daay dafay yokk day ka doole moo de baraham baatab bu jibee ku ko weddi iblis na yaakaar alu jahannama ñoo bañ suñu baraham ba yàlla déyog baraham ca mul ko malakoon ku ko fekkee wutoon bul weddee bëtam bu jekk ba bu jekk ba bu ko xoolee ca kaw asamaan mul ko malakool la ca biir war na barahama bàyyi ñes bi ne moo day dàq saytaane te di raseleer Ibrahima Diouf dagal ma sa bàyyi sëñ barahama barahama barahama barahama bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi barahama binneem wa day dàqa saytaane te di rasaleer Ibrahima Diouf Ibrahima Diouf santal gërëmal suñu baram ne mi lemam tabaam yaa ana ma jël ñu neen jibil taxal na kër Mahmoud Sidi Bara alarbay kattay ka bañu karlo baram abdallah junay ñenaaw ndawe lay fo way la ku nekk yor xër waral galar lu doon ndaw ma sëriñ am ci bi bi bay nga naan baraama muñ dool say doom ku ñeme yemboy lekk lewyen suñu baraama noosum bi iqbir li sadaxta baraama yaa di baabul kanza laxdam suñu baraama dalaan dofel njorot bàyyi bokkaale lab yàlla xaatir leen ci melaw yónneen ci li baraama baraama li ñu xamal jombe nay wax lu dugur yàlla xooloo la ilalla ci li baraama yàlla ba muy amal xaalam bi xalima ngay bàyyi bàyyi lañ bindee lawil maxfuus ci li baraama Ibrahima Diouf dëggal naa loolu ñeme na koy war ku ma weddi ñi door ci kaamil seeni baraam maa ibu ne wax joo dowul waxu aqiqa galul ci maj soom dellul leen ci yàlla gëm leen seeni baraam maa baraam leen ñu xamal jombe nay wax lu duhul yàlla qul laa ilaaha illallaah bàyyi baraam maa yër wuñ sakkut bu mbaacee daanu jële man lee foor yaa ñu gardel xal ci biir bopp sidi bara kulul haqu sidi kawrini ikbir li baram sabtuda sigito mas sidi baram lalhabadi wala yamutu la yanbaqi siwahu ya karimu mooy maalikil mulk te mooy waabu duur ku ñuy digal kile xaaru moo ñaama lool ci cooba rem soowul te bu ñu fi jëlee alal du laajte bismillaahi maa ngi soogu mànni ma woykat yaa woon ba jët sel ma ye laa jëma aw ngir bëgg a woy baraama ba ñëpp xam la mooy doonu rasuulu cey baraama ahmadu jaw falu te dellu xaatir te jéemoo bi defee kuy waaje te wax ko ci wolof ngir ñi nàmp yaram te leere mbiram ñu xam kuy waaje ndeysaan dongo yëpp maa ngi leen da jaare bu ba dem naa cey baraamaas yàlla ñu tànn yoonu xalilu laay te def ko mooy imaam kullul awliyaay yaaram ba dem na ñes moo rawoon ci diina kenn moom la gis kamam neneen ma gongo déglul ma wax la fam rawee maa samte nga dal di xam mooy dunu rasul ci garam yow ma alastu la bàyyi la woon kuy maasam moo njëkk a wax ba léegi naaw rasul ñu daal la koy soral manta limaana cappal ko rangal ko garaatu xutb keroog la jiitu kullu lawliyaa ruux yëpp naan ba léegi xaliilulaay rasulullah yar ko wasalal ko nga dal ko boobu xam-xamu diraaya من علك يهبل مجله لرسول لا يقول لا بقول جلبي يبرد فلا جلالكم فلا يواجه نرد جل دمي من يجوكم قام من المرام مولا قاجل لرم ملخ جل إجاب المعرفة لي مو ورال كبير غنك وارم بفقول دسناسون ñu jox ko ba suñu maam di Abdoulaye mooy góor gu mag gi ñëpp xam ci diina moo boole mandoo te boo saree mu gàddu leer ga jëm jëlal tey bokkam ñu jox ko ba suñu maam di Asu Janqa kookaa di soxna yi rawan ci soxna Janqa ma raw na xëy na jël na ndam la maam Abdoulaye jaani dirti saani ndaysaan buuru mbayeen ma gis ko def ko xaadi ñës nekk na gam nekk na kër Samba fekkee tey mooy lalu baraam atum bi diiba mooy lalu baraam ci aw rajab ci aw samba yawmal xamiis fi waxti asri loxul ba wàcc sodaan këni alas yëpp riir bi laay ne yëpp dolli l'islam képp ku dul jullit jógal màggal ko ko bëgg a tëddi fii ba a xamee la nga jar hajjana jógal màggal ko ndax màggal ko mooy màggal Rasulullah man gi naa ko ci bismillah bésam ba del si bàyyi ba daaj ko ngente jibril la wax ci jiw maama laaj nan ko nan ko tëddee xamee la laaj kon na nga gis si moom karaama laaw mu daal la nga tëddee xamee lu mu ne yàlla ji ci moom karaama laaw mu am fa ñetti at noonam yàqee ko ngir gaay baaye ko ci hidaaya ñu daal di koy karaame ko paan nguurum ñu ngi koy fexeel sirte la farna weeru ñu naan jool ba sëñ ci jaan sa nekk ñaara koo kaa yëgal si biir ma alaaji ñi la daal di bëppëlëg bañ wax gàllaajo te daan sàmm nagam ya moo ko feeñal waaye man la ma wax mooy bareem moo ko feeñal te yooyu àll jafe fa ña xabaar te suñu waay ci waxtu xas lay digal baayam la ci yow ma loolu yëpp laay mooy waaje boobu la bàyyi ko xam-xam yi ñu jël bagaas ba def sa def sa réew mi noonu ngay ñëw tey ba fekk ma kenn ñu def ko ñaaw tàlkal ak jàkkam ja maam Abdoulahi sama fukki at yoo mat fa Gambi ndigal la del si nan ko waajal dellu yaa Allah yàlla moo lay sàmm soo demee dëkk sa ñëw abal fekku looy dem ñu gis ko kon dañ la féexal man Abdoulaye Ali wax na la ni ñu jël bagage ba jël si waat ci réew mi ñett nekk na dàgga nekk na réewu bàmbu ngir samp leer Abdoulaye moo farlu mu sañ ci kuusi kuusi ko meme li waay noonu we daa di ngi mu Abdoulaye kon ko boole sañ ci fii si kaw la képp kuy hungerel demal ba Kaolack barama ca suñu waaja barama ca suñu waaja barama nga mel ni jant sa biir njaboot ga bëgg ko gis sopp ko ndax taaram ba fukki at yu teg tuuti la yaa moo dégg alquran bara ku yaale ñaar fukki at ak benn la dal téere ruula dem téere jombal naari mu jox ko baayam ba baay ba daal koy jàng xam luñ fëddi ya daal tuuru mu denc ko ñetti at ci la dal di feebar te du ko fukki faal feebar ba yokku mu dal di woo njaboot gi ndax dénkaane xam na daal ba mën na gi alaaji Babacar Ñas jox jàkkaam alaaji Momar Seynabu na ko dencal kuy a alquran nga jox ko kaamil kuy sàkku xam xamal ko tëbul ba gàntal ñett séddale ay mbiram ba ñëpp daj ba mu des baraama jël suñu aajo bu daal di xëyoo ci nekk wàllam ba daal di dëj bunta yëpp nañ wax ko waa duñ ko wax ci mbooloo yàlla ci xam xëy bu ko moo ko bóot fexet ba man laa bàyyi ma daa di faatu soxna ya mbuuru doo ko yëpp jaaxle baraama daal di fay deseg malam ya ñu jël ko yóbbu ko sa jox ko daara fanweeri at yu mat la feeñal faydu ngir xam na talla rabbana borom bi sëriñ bay rakam de moo ne taaw moo njëkk a naan sa leen man mbir ma weeru mam abdou ñang cheikhu omar ñaw xaaju ci aw korité coow far na gaañi mbokkam yëpp bu meru ma daal koy génne keroog la yendu saam de sàmm diine keroog la yendu saam de sàmm diine fa lañ fileeg subaan keroog baay di xutba kàddu bi raw na xalam ci xol muy jàngal quran ba wax bi la la taqaafo wala tazanu inna laa maana loolu moo waral keroog yu mun bi coono du xetu pël du lawbeeru séeréer xeet yëpp teew na jëkkër ak saam ndax jaayante ñes nandal nga réewu siin nandal nga saalum nandal nga jolof ba jàll fuuta nandal nga Casamance nandal waa Gambie ba soosa ya jolaay yëpp mandi li wér na séq fay sa dégg bàyyi tafsir kebaa bi tey alaaji mambay salaire ya xot ci réew Muritani nar ya pasakaraw abal si koosi ka njëkk a ñëw ñu ne ko adi modu aafis ñaareel ba seen aaleeg alaaji haadi ñoom bañ jënoon min ka fanee ko koosi ñoom ñoom ba ko sal ko la tanaan ko maarum laa sakka fii ay rasulillahi لا شك فيه أي رسول الله أمر سك سك نباي موي رسول الله يفرد يوم أي موقع السيارة لإني حديا تعي شريف لي سنة رسول الله يقنون الهداية وما قبل من كرك أيوايس يستوى الجاي تركا tubal ngay muusi ngay muusi tubal nga katta kulle ki jarme mokkal nga réewu awsa wa nasaani jàngal nga ay xaalim yu jàqal misra fan nga kumam ña musta dëgg taali sikkil nga der bu ñuul selal nga diine naatal nga réew mu musta am naataange seetal fit teewoon ñu daan jaat tay puutar yaa ko amal ta sox tugul yaay waaja ku weddi lii demal ba nekk tombi nga gis lu min ka def foofa nga a ay jalañ da jaamu ay xërëm sax su mooy la foog muy lu jaadu wallahi bàyyi sa fa dem mabb seen xërëm ya tasaare seen jalañ ya samp fa daara rëdd fa jàkk ñuy sikkar da noddu xel dañu tuur xërëm yi billahi mooy waaja alhamdulillahi ñi bokk sant rabbana kam dogal ba jullit bu xam nattu day muñ ca borom bi nattu jullit da yokku ay maqaama seetal ma awliyaa yeeg yeneen ya kenn masu fee ñëw ngir liggéeyal borom te nattu yaag balaaya fokk nga jaar ci nattu yaag balaaya muñ ko ba jot ma yeboole ngërëm ya diggante Adama ak Baraama mi dem kuñ ma sooyoon di jar nga fii billaahi nañ jéem a dëddu àddina ak bonoon bi jar la wóolu aje la ko ayoor la ku topp taara wi mu yan coona ba ca jëlee njëriñ lu dul musiba àddina buggul ku baax xamul koo baax kàccoor la li muy rafar la lu jeex la yow saa xarit wut baaxi ma lay digal ndax day màbbu jëf lorub ci lu la la wattu ma rëy bàyyi ma kañaan araam wal ma jawwatu ma ñeete kër man ta am dara sudul borom bi ma do si lépp loo ñàkk ba moom ko dolis rabbana waram war sëñ fay lam la jox soo ko bëggee ndaw coonam yow sa xarit te xool ak yi ma lay digal si xeet baax soo ko defee mooy lay jël fexeel ak tuub te tarbiya soo bul ci yoonu góor ñi mooy lay jël ma képp kuy julit ay tàggim jàngal ma alquran da yarandi xaalis ya loo ci xamul laajal ko xam mu wax la foo a la toll yaa ngi delloo ko waale bu rëy te bu rusoo demal ko tolloo ci xam fexeel jafee mooy si ba faaw tëbul ko neenal li lañ si baay ba daan waxtaanal ba xëy na ngi def ne nii morooman ñun ñi fi des bu kenn jooy faw danañ ko fekki ñi tigal lañu yoonu mbaax war nañu saataam ya ko jadu jéngo bilaay doo rëccu ko jaaraama baraama ne leen jaaraam jaaraama baraama ne leen jaaraam jaaraama baraama ne leen jaaraam ñes kumba yow rek e woo yàlla def sa barke ba bañ ko fekki ci barke Mustafa ne leen amiin bi war matti Siddiqi e wal Faaruqi bi war matti Nuurayni wa Sitayni yàlla ko yàlla wuuti ci njaboot gi góor ñeen jigéen ñi ak ci dongaam taxalu naa di jaan ci ñiin fi baay ndax yàlla def may murid zaade jawju nit Mustafa mi ñëpp wóolu ndax yàlla def sa bay ci muy fatu suma salaatun alal muxtaari baale سمع ياري وي نور يسلال وي من قوس دين جتي نور يسلال وي نور يسلال وي من قوس دين جتي وي نور يسلال وي من قوس دين حول الغير لي بقوي وانا خوس دين جتي وي نور يسلال وي من قوس دين déglu leen ma bàkk ci mbër dama ne lambu diina sajji na tey déglu leen ma bàkk ci mbër kenn manu la yaa dem ba rëfile kanu kay yaa doo rëyis lay way boo di xaw si bi baay soo yeboo si ji tanganan yaa dem ba rëfile kenn du la daan yaa doo rëyis lay way boo di xaw si bi dama ne jëbi yaa la lambu ji rëy tey ku yor samar da ko jay yaa doo rëyis lay way boo di xaw si bi waaw yàlla làmb ji rëy bëri na wuy duñ bëri tey moo dem taw si biir la banay junjum ñu ne ku daay kan ala koko di kan koko kana di kan kana bay mo dem bar mi na je fal bay no ro nya salay mo ne ko bi la ma de so ko mo la kul ko wa do ta xaw na nay werer bay no ro nya salay mo ne ko bi bay so ko mo la kul ko wa do ta xaw na nay werer bay no ro nya salay mo ne ko bi المقصودين بزين قد العارفين بهم لو مرم مويك لفل باين المقصودين جرجب لو برتك اللد دور يسي قلم دن لين فجنور يسلاي بين المقصودين بزين dina yéegal ca kaaba yàlla ja ñanga wulul say xama nga wax baya wax ne say xama doy ko doyal li lay war a doy way góor ñes lay way waaw baya wax ne say xama doy ko doyal li lay war a doy way góor ñes lay way ci bàyyi muy andi si biti jërëjëf su ñëwee mu dolli la saw kuuba dellu saan ku ji sa tënkee mu def la ragal ne ki mbon ku ne ka ca yow ka sa waan la jëm na la dellul ta jaamu yàlla bu wér bu loo defoon ci li ñaaw awra bi far na ko tey sidi ak maday kila fal to mana da way kila moy am na mbir yi rëy fi bàyyi dew ci wàll réew wi hijaba tey yi fi bayram ci wàll réew hijaab waaw waaw am na mbir yi rëy yi fi bayram ci wàll réew hijaab am na mbir yi rëy yi fi bayram ci wàll réew hijaab moomu fi ñëw waji ñëw na jàng ci baay doto laa baay nooru ñes laay ore xaw su diina do xalifatu si sa baay didu la ci diina je tay baay nooru ñes laay ore xaw su ci diina je tay tam Mustafa ma ca Madina loolu mooy xalifa boobu may mi ne bu ko doon def bilaay kenn du ci jot waaye yàlla mooy ki ko def ala raam yooyu garal ñaana tax duñu wax waaye yàlla def nañu jël waaye noonu ña salaay waaye xaw su ne mu def wargi ñëw kàccax ak gi na lax ruyitil ba xol yi bam bàyyi lu ñas laay boo di xoos di fexe bàyyi wargi ñëw kàccax gi na lax ruyitil ba xol yi la la bàyyi lu ñas laay boo di xoos di fexe bàyyi ngir man nga kenn du la fay gerte yaa ngi doon bëgg a wow bàyyi lu ñas laay boo di xoos di fexe bàyyi fay ngir wu man nga kenn du la bañ dina jaagi doon ba nga fay baay naara ñas laay way ba nga xaasa dina ila ba gi ñëw nga jax gi na nasu wii tit ba xol yi la na wu man nga kenn du la bañ gerte yaagi doon ba nga waw baay naara ñas laay way ba nga xaasa dina ila bari fii tabak akadal telulelu salange mu jema tekki janjina namla mil kayo bunako bayu doro nyasai wai bari kau sudi dabida sanu bakku dotu na bu jilem masa tax mu àttali ndaw a wilaaya kenn du ko for bàyyi nooru ñëw laay way xoole xaw de rawita ma dello wax fi lu rëy ci wala fa bagaañe xamul xam ne min ka mooy ki fi raw dakilam suray waru koy jëj bu yëgën suuru jëjëj loolu moo waral ñi fi ne kenn baa ku jam si si aw bàyyi nooru ñëw laay way xoole xaw de فتاي كلا فل شفال عين دوي كلا وي وري نور جسلاي وي وري قوس دين أنا سيق جبل لين تلين لين أمام منيراي وري نور جسلاي وي وري قوس دين balu leen tàlli leen amaam mu ñu raye bàyyi nuuru ñes laay bàyyi nuuru ñes jërëjëf yàlla yàlla yokk samay dolli lay gënal ba mu day gadam ci diina ji jar na nam taya jar bàyyi nuuru ñes laay jub koy gewal wala ngay jub da jeema taalifi way ngay na way nekk firawn saka waa ngi yaa jaraw yi bàyyi loo ñasulaay way mooy xaw sa dee dañu way la kër gi firawn saka waa ngi yaa jaraw yi bàyyi loo ñasulaay way mooy xaw sa dee dañu way la kër gi firawn saka waa ngi yaa jaraw yi bàyyi loo ñasulaay way mooy xaw sa dee ay nuuru ñas li mu def jar na ab géer di ko way loolu moo waral fu ñu toll da jéem a fet da ko way ay nuuru ñas lay way wala xawsune sete leen ma way waal lu fi yàqu ngeen na du nii ay nuuru ñas lay way wala xawsune wax lu baax dafa wëy soo dee wax lu baax ñu ne day xas tabaara sàkku gërëm ma ne kii ma way ki ko way kenn war ta wax lu rëcëy bàyyi loo ñëf lay way waaye xaw sa diina mi waaye kii ma way ki ko way kenn war ta wax lu rëcëy bàyyi loo ñëf lay way waaye xaw sa diina waxal lu baax dafa woy soo def waxal lu baax ñu leen ay xas te baax na sàkku ngërëm ne kii ma woy ku ko woy kenn war ta waxal lu dul ci bàyyi noonu ñas laay moo di xaw su dee la bi ci ko tas te dafa jële aji gëm ñoo ngi ñaan nga aar ñu ci murta te dafa ñu ne aji gëm ndax ba yàlla buur ma da soxla ruhu yi fekk bu ñu jum ñoo ngi ñaan nga dolli ñu xamul ba foo ñu toll de مسلمون ورسول الله بن مسلم تجامل بلن يسوي وجمنا عم كل دجيم خمف معم بايلور جزلاي وي ورقه وزدين سيدي سيدي سيدي سيدي دما توقف في الدقيقه pusante la noonu kawaraay moo tax eh, jërëjëfe Baay Ñas la ilaha illallah الله مدح النبي المصطفى say تمت تمت تمت تمت تمت مقالي يسعي إلى كمالي say سميت منها يسعي إلى الأماني نام إبرام لا إله لا إله لا إله إلا الله لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا تسريفا خديم ذا بالباب وهو مؤمن جاد مقام وفي كل حي قد خبطت بنعمة وإني كشاسم قد أرونا عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي حاتما كذا حرما من طاح حاز المواهب لذاك تراني قد عكفت ببابه فمنه ينال محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقدار العظيم jox ko micro jox ko micro وهل أرحب الدواء منكم مواهبا فقد mukk loolu saa yóbbul sama micro bi jox sama micro mu dem. alhamdulilah. sëñ Maodo est-ce que doo dem fële si wuti sëriñ doo dem fële si sëriñ nga maa ngi loolu dem fi nga nekkoon rek jàpp si rek ngir yàlla. lu mu am fii quoi qualité bi avancé tuuti damay avancé tuuti. sëñ Maodo. Cheikh Ousmane Niass. Ibrahima Fall bu Khadim Cheikh Mokhtar Fall. cheikh. xëccal fil bi xëccal fil bi. mboolem zikkarkat yi cheikh Ibrahima Ngom cheikh Nazir Diouf cheikh Sidi cheikh Ibrahima cheikh Aziz cheikhul Khayri cheikh Ibrahima Guèye ak mboolem ñi nekk foofu ak jalbaati cheikh Mamoun Seck bi. maa ngi nuyu ñëpp. man damay ubbi rek. Eh, jox baawul xadara. muy Seydou Alioune Cissé mu defal ñu waxtaan bu paree ñu jox wa Ibra Fall bu xadimun mu waxtaanal ñi buñ paree jox Cheikh Ousmane mu waxtaanal ñi ñaanal ñi ba déwén waaye balaa boobu dinaa def ñaari yëpp muy Cheikh Nazir Diouf danañu ubbil alxuraan bu paree ñu jox Cheikh Sidi Habib moom itam mu ubbil ñaar xuraan ndax bu la yàlla mayee ci bés loo xam ne dëgg dëgg may ak yàlla la loolu nañ ciy profité te loolu xéewal la ci kaw xéewal te dana kontaan la képp ku ñuy seetaan dëgg la ñas ak képp ku fi toog ndax bés bi tey bési bàyyi ñas la nit ñi sonnoon nañ lool waaye gis nga nit ñi dañoo bëgg bàyyi dañoo bëgg yàlla boo xalaatee nag ci la bàyyi juddu rek coono bi day dañ sa yaram boo xalaatee nag ci la bàyyi juddu rek coono bi day dañ sa yaram ndax ki nga xam ne moo sobeel suñu roxo yi kooku dëgg dëgg kooku sobeel suñu roxo yi bu taxatoona yi ci leneen lañu dem waaw suñu roxo yi ci leneen nekk waaye moom moo sobeel suñu roxo yi ba suñu rox yi placé ci place ba mu war a placé mu gën ci moom waaye bu ko sobeewutoon rek dana déplacé dem ci beneen place boo xam ne duwul place am. jërëjëf jox ko micro bi. xale mu sool bee sewel suñu luy kon dama waxtaan damay jox Cheikh Nazir mu ubbil ñu alxuraan bu paree jox xaritam magam mu ubbil ñu alxuraan buñ paree waa rakkam buñ paree jox baabul xadara waxtaanal ñi bu paree jox ko Ibra Fall bu xadimu bu paree jox Cheikh Ousmane mu waxtaanal te lépp ci bàyyi la rek bu ngeen ñu waxtaanal rek ñun gërëm nañ bu ngeen paree Cheikh Ousmane ñaanal yàlla ñu ñaanal waa Milaane ak taalib mbokki taalib yi jullit yëpp yàlla fay leen ci barke bàyyi kon ñu jox Cheikh Ibrahima gaaw Ibrahima gaaw euh, Cheikh Nazir Diouf gaal nga orienté la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 إنما المؤمنون الذين آمنوا حتى فيه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا na avancé rek. xaaral nañ def nag faaw de. bàyyi wax ji bàyyi wax ji. bés moom danañu daje jàngal xuraan waaw bés moom dana ñëw. Hmm. dañu leen di jàngal Alxuraan rek. waaw te yàgg dara. kon ñu ngi gërëm Cheikh Nadir Diouf bu baax. vraiment avancé fële. Habib. waaw maa nii rek bu baax. macha allah maa ngi nuyu. baana noonu baana noonu foofu foofu. Cheikh Moustapha. Cheikh bi xoolal avancé avancé. Cheikh Alhaji Mouhamad Zeynab. suñu kilifa bu baax xam nga ci suba ba tey man moom ñoo nekk maa ngi gërëm teewaay bu baax kon jox baabul xadara suma xarit suma soppe suma àndandoor ci yàlla Ibrahima Bousso ci kër Cheikh Ibrahima Wade ba tey waxtu wu nekk rek yàlla di ko gën a rafetal ci zaahir ak ci baatin kon ñuy dégg baabu xadra pare ñu jox wa Ibrahima bu xadim pare ñu jox Cheikh Ousmane mu waxtaan ak ñu ñaanal yàlla ñu yeewee ko ba beneen yoon asalaamaaleykum. alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين ورضي الله عن الخطب المكتوم وبرزق المعلوم مولاي أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني وعن خليفته على الإطلاق مولاي شيخ الإسلام وسعادة الأنام حاج إبراهيم يس رضي الله عنه يس القائل فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء فطابت النفوس mu tax doon a ndigal bi yëkkati benn kàddu dañuy def tawassul ci jumla boobu bàyyi waxoon ca gaana mu ne waxuma lu dul baatu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu l mu ne buur ak baadooloog majuus ak umara ñëpp wax ko bakkan yu bëri daal dafa dee si guddi gii ñu nekk xol yëpp ku nekk yaa ngi am loo yëg sa xol tu xamoo lan la ñoo ngi ñaan si barke guddi bi ñuy ñaanal sëriñ bi yàlla guddal fanam ndax moo ñu may chance bi yàlla guddal fanam ndax mënoo nee na wax ne foo neen kaa moo teeba kenn ku nekk ca la la yàlla mayee chance ñu toog fii di dudd allahu ba ku nekk am lu yegg sa xol tu mënoo kon amal nañ ko gërëm yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne afdalu ma qultuhu ana wal anbiya min qablu laa ilaha illa allahu si guddi gu màgg gi si bis bu màgg bi yàlla may ñu loo xam ne mayit ko kenn muy góor goo nga xam ne ba léegi ñu ngi koy ni nga xam ne bu nekkee lim nekk ndaw la waxoon ne faqad tamma fatxi inda mahdi wa qad alat jamiu rijaal al taxta qadaayi mu ne fatxum ci yàlla mat na tubboo moom ci laalu bersoom mu ne lu tax wa lim laa wa aynu yowma aynu muhammadin mu ne lu tax ndax jëmmu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey mooy baay ñi ko mën a dégg sara sirrahu fi haykali wa ruwaayi mu ne la mbootu yonent yàlla muhammad dafa rootaat ci mbootam kan lan moo ñu wax ñun fekkee loolu yëpp am na mu ne wa ahlu zamani kulluhum faaza raqiya siwa man qala nahji asira hawaayi mu ne ñooy jamono ñëpp texe ñooy jamono ñëpp texe lu dul ki nga xam ne la wuutee naag sama yoon wala nga topp sa bànneexu bakkan kon nañ def tawasul si bis bi ñu tegu toujours si li nga xam ne moom la bàyyi rëdd moom la bàyyi gërëm bu taxutoona kàddu duñ yëkkati benn baat dañuy doy loolu li nga xam tey mu ngi saf suñu xol ñu ngi ñaan yàlla yàlla teg ñu si yoonu siraatul mustaqim ñu ngi ñaan yàlla yàlla teg ñu ci yoon bi nga xam ne moom la bàyyi gërëm yoon boobu nga xam ne si la doon xiir aw toppam wa man shaa wa man shaa naawaaw ahla shaqaa'i kon ñoo ngi wax Baay radiyallahu anhu ne ko ñun dikkal neen la te ñoo ngi ñaan yàlla buñ delluwaat waaye ñoo ngi ñaan ëllëg yàlla nañ dëkk ak moom dëkk ak moom Cheikh Ousmane falyatafaddal mashkura baawul xadara kàddu gi gàtt na waaye tegtale na yàlla Cheikh Ahmadou Makhtar Fall mu waxtaanal Allah maam Ibra Fall billaay mooy Alaaji Yàlla ko Baay Ñas radiyallaahu anhu ñaan yàlla sëriñ bi yàlla garante ko xaar ko sàmm ko dimbale ko ba mboole simb yoo xam ne am na ko yàlla may ko fan ak ndaw yu dëggu ñu mel ni innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa zidnahum hudan ñu dimbale ko si barke Baay Faatiha Diyor. yéen ñi bëgg bàyyi bi xool nga xam ne dañ bokk si ñi nga xam ne bokk ñun suñu màggal juddoom dëgg dëgg lii day firi ne bàyyi mooy waxoon ana nafsu wala afaq ama raytaha saraani fu gox mën nekk rek tey tey wala jërëjëfe corona booy booy booy avance avance tax fii tey nekk tey ba bu ci kanam avance feneen nekk tey ba feneen nekk tey ba feneen nekk ba ñetti guddi yoo xam ne ay tey ba allah bu corona amutoon ñun ñëpp ñu ngi tooy ba kenn du lal sa kër kenn du lal sa dëkk bëkki di koro gaa yi ngi lal tey di tànt di màggal Baye kon Baye mooy jëmmi corona ndax moom rek moo dañ àllal kon Baye mooy corona jor nit ñi di ko daw dina dugg fu ne jërëjëf waaye jërëjëf ñu ngi koy muslu nag noonu la ñu musloo bàyyi ñu tam noonu yi noonu ñu musloo bàyyi nit ñi nit ñi di musloo solena ñi bëggut bàyyi noonu la ñu bàyyi waaye dara ñëpp dañ leen quarantaine yéen ñu yàlla dimbali waaw guddi tey gi moom guddi zikrullaahi la ak guddi fikru tudd yàlla ak xalaat tudd yàlla ak xalaat tudd yàlla ak xalaat yal yàlla may ñu yàlla ñu bokk si ñi nga xam ne gërëm leen ne tudd neen ko waaye nañ bokk si ñi nga xam ne bu jotaay bi tasee itam ñuy xalaat ci baay moom lan moo tax mu romb du romb du romb du romb ba tey bu ñu doon juddoo tey ba ñu hmm. bu ko neexoon juddoo bu ko neex hmm. waa Fass a ngi toog di séntu hmm. ay nu maa nekk noonu balaa mu romb leen ah, su ko wàcc beneen dëkk am na fi ko doon xaaree bàyyi na tey ba ñu seen bi tey ba jeex ci ko ilaahi tey kon jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. bés bii. di liggéey rabal ibaada lu baax la. man de daaw tey ba liggéey naa trois cent treize rabal ibaada te yi ma si yéene woon yëpp gis naa ko ba gis naa yi ma yéene wutoon. gis nga rabal ibaada hmm. amul lu ma dafa wanfa'una jami'an man xasitana dañoo toog bekkoor am balaa am jafe am gàllankoor am yëre yu sol jafe mag ñëpp ñëw si bàyyi ñi radiyallahu anhu ne ko dañoo bëgg nga ñaan jamono soppeeku mhm. bàyyi na leen dem leen si jiw ngeen tawatal ko ko ñu ñëw si diw tawatal ko diw na leen bëgg leen bàyyi gis nga aaya bi sëriñ bi njëkk a jàng mooy xaalatil arabu amana bi xulam taminu walakin xulu aslam naa am na ñoo xam ñu si bàyyi te aaya dañoo woote woon na gëm nañ rek si daay fekk gëmuñ góor gi neen dem leen ngeen di bëgg bàyyi ñees yéen a ngi di bàyyi tool di sono seen bopp ba seen njaboot gi waaye bëggu leen bàyyi dem leen ngeen bëgg bàyyi ñu ñëw na ko kooku dafa dof nee na nañ ñu bëgg te ñun dañoo bàyyi suñu njaboot yi bàyyi suñu njaboot ñëw fii jël liggéeyal mu ne bëgguñ la bàyyi bu ne bëgguleen leen ma rek bëggu leen bëgg yi des na waaye nag dama tawasul si la sukk ñaari bëtu moom yooyu daal di jàng rabal ibaadi rabbi anzilni munzaran mubarakan wa anta xayru munzilin tëgg ko si rabal ibaadi ñaari yàlla yéen a yàlla may bëgg bàyyi. Mahamadul Misri radiyallahu anhu daf ko kilmaan laa ko isbiraal ahsan mu ne ko isbiraal ahsan mahabbati yéen a yàlla may mahabbati sa yéen a yàlla may mahabbati sa yéen a yàlla may mahabbati sa asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah rabbil alamin الحمد لله حقا الحمد لله الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله من بعد ما ضاقت القبر بما رحب على الذي حملت فالحمد لله الحمد لله ما كنا نعمله هذاؤه بيننا فالحمد لله ñi ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi di la nuyu di la ziar xam naa ne dana jafe trop trop pour ñu waxtaan fii ndax ñëw ba kër ak waxkat bëgg fee wax moom yaakaar naa dañuy wax du jar waaye comme ndigal moo tax rek ñuy wax ndigal li Cheikh Mokhtar am wax Seydi Ali sang bi am wax moom rek xam naa moom nañu wax te dañuy jàngal rek man saa yu mu ñëwee rek li may jàngee mooy jàngal wax jàngal mi ngay waxee ñemeel fi nga jëm man loolu laa ci jàngee waxtu wu nekk te saa yu ñëwee nga def lu mel nii ñu ngi nuyu Cheikh Abdou Salam Sarak di nuyu Seydi Ali di nuyu mboolem jàmm yàlla yi fi teew yëpp man nag lépp lu may wax ci bàyyi laa koy wax ndax Seydi Ali wax na zikar Cheikh Muxtaar wax na ñaan kon bàyyee des te lépp lu muy wax si bàyyi si sëriñ bi jël di wax ci moom di wax ci bàyyi sëriñ bi sama ko mayee <laughs> jotaay bi njëkk bii nii ngi def nii nga xam ne dafa mën nañu wax ne tuuti na si bët korog bi nga xamee ne bàyyi nekk na ko si sa maam yaa fa jaay bi nga xam ne tabax bii ñuy tabax moom ngi ko tuddee gaa yi liggéey yu bëri comme li Cheikh Mokhtar wax léegi naafeq yi bon yi ñëw di wax di yàq diggante bàyyi ak bàyyi bàyyi na lu mun ta xew faj jaañ ak Ibra Fall moom duñ dem lu mun ta xew lu jafe-jafe bi tar-tar faj bu ñëpp demoon ñoom duñ dem te kooku mooy sa maam barke boobu noonu bàyyi waxoon ne bu ñëpp demoon itam bis dina ñëw ba noonu yi xasanu sax bi ñuy sànni ay liggéey ñoom dañuy danañ ëlbatiku ñëw topp suñu yoon ñu ngi lay ñaar yàlla pàkk bi yàlla na mel noonu ëllëg ci barke Baye ak Bayam Sidi jàng na alxuraan ak sëriñ bi Baye wax nañ ne suñ bàjjen yaa Umu Kalsum korog bi mokkalee alxuraan man ñi bëree bëri fii Sénégal biñ ko déggee dañ koy wétti ah Sidi Ibra ti na ay naan xale bu jigéen dafa mokkal alxuraan parce que xewutoon wax nañ ne suñ jumu ci taarix ne kër ji jigéen ñi dañ daan jàng ba mariama wala ba yaasin waaye jigéen bu mokkal alxuraan kër bàngis la ñëkk am fii Sénégal ñoom ñëpp ñu koy weddi di yónnee bàyyi di wax ay baat yi ñaaw te tey alxuraan googu yàlla dëggal na ko fii si barab bii dem ba bàyyi ne sama mbóot inna sirri kalaamu rabbil mubiin ay daay ay daay lazi bihi nasta'iinu waaye fal taj'al lana xifza kitaabika al karaamati illaa liqaayika al azim dem ba doom yëpp mokkal alquran góor ak jigéen te jamono jii ñu koy def léegi yomb na mun nga koo nettali ne doom bàyyi mokkal nañ alquran waaye ci jamono jii noonu ñu mokkaloon alquran yombutoon boobu kër mën nañoo wax ne kër yëpp bàyyi rek la yàlla mayoon karaama boobu doom yi di mokkal benn par benn te digg tagut te ñoom bëggoon nañ ko waaye yàlla mayu leen ko nga jël. tey fi mu juddoo moom Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñu ñëpp xëy nañ dem fa ñëpp si waat waaye dafa waxoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la in shatta anni bil amini day nga mazaaruhu fa mashhaduhu fi lqalbi laysa bi saarifi mun bu nekkee ne sax sori naa ba mënu ma laa ziyaare si maa ngi seede si xol bi ne mbëggeel gi moom du soppeeku te ñun même buñ ñu xañoon gàmmu Taïba ñu toog suñu néeg yi terewul bëgg gi ñu bëgg bàyyam du soppeeku la day yokk daay man waaye du soppeeku te Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dafa nekk góor goo xam ne man man man man mënuma koo melal si dara mënuma koo melal si dara parce que mooy lépp te itam moo sëriñ si gars yi ko wax ne ko yaay cheikhu siyuux yi yow bàyyi yaay sëriñu sëriñ si sëriñu sëriñ si mooy li si daali soo wax ne dégg nga huwa cheikhu fi jamii maratibi Seydina Ousmane Ndiaye wax ne mooy sëriñ si mboolem dégg nga awsaaf yi si mboolem melo yi boo ñëwee fekk ko muy jàngale alquran Oustaz Braham Diop nee na jamono gi bàyyi toog di jàngale alquran nit ñi di mokkal ci kanamam boobu maqaama gi mu yéegoon moom gisutoon wali yàlla bu ko yëg di jàngale alquran mu ne jamono gi nga xam ne mu ngi jàngalee lawal daaliya maqaama dureeti te téere yooyu yëpp jàng ko ci bàyyam waaye jàngale na ko te moo dem ñuy jàngale darasu yëpp darasu yi ñuy jàngale yëpp da nga ko jàng soo ko jàngale mais mooy sëriñ boo xam ne jàngale nga tiire yoo xam ne yow jàngoo ko mooy sëriñ boo xam ne wéy nga taalif nga ay junney junney si ay abiyaat te li nga taalif noonu jàngoo lu lay may pour yow nga mën a taalif te fii képp ku taalif si sëriñ si dangay jàng bind waaye nag boo yëree liñ taalif jël li bàyyi taalif nii lañ def bañ nañ ko ba boo tuddee bay ci bàyyi sax dafa mel ni alquran parce que alxuraan boo teree aaya rek ñëpp xam ne alxuraan ngay jàng waaye boo làkkee arab ñu xam ne yow waxoo alxuraan waaye bayti bàyyi itam foo ko tari ñu xam ne bàyyi bind lii seen yeneen ñëpp seen bayti yi boo ko teree ñu daal la ku ko bind mais bàyyi ñes booy tari bayteem ñu ne la bàyyi ko bind loolu yàlla may na ko loolu noonu yàlla may na ko li oustaz Barham Diop waxoon ne fekk na sëriñ si yëpp di juxu di di buuxoonteeg ay waliya ay man man man maay borom waaye moom yeggul foofu dafa dépassé foofu dama ba ci jëmmi xut bu toog fa te bàyyi ngoom wax na ko léegi mm-hmm. Mouhamad Michiri way ko ne ataytuka yaa ruuxul dégg nga wujudi bi asrihi wa yaa mazhar al asmaai wa yaa muntaha al ilmi mu ne ko dikkal naa la yow bi nga xam ne yaay ruuxul wujud yaay ruux bi nga xam ne yow la yàlla njëkk a amal si kaw na bi te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu wax ne moom la yàlla njëkk amal te bàyyi wax ko bulitu bi xubbul Mustafa alxatmi ahmada abil kawni wal axlaaqi faraan kon nag moom moom la njëkk a amal si kawni bi Mouhamad Misri ñëw si bàyyi na ko yow yaa ruuxul wujud bi sëriñ bi sa waa ji Cheikh Ibi Diouf ne ko ruuxul wujud bi ñes yaay ilimaani mulku ak molokoon mais ka nga donn ñun sañuñ koo wax ka bàyyi donn ñun sañuñ koo wax Sidi Barham léegi si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo fi nekkoon yàlla nekk fi bëgg lu ko wettali ñu ne comme ni ko sëñ bi di gàmmoo yonent bi ñëw feeñ di wettali boromam bàyyi na yonent boobu noonu nekk yàlla di ko amal pour mu wettali ko man maa nekkoon ak moom di ko wettali di bànneexu si moom kon ñoom ñaar kan mu ci ruuxul wujud waaye nag mu ñuy waxee ci maqaam bi nga xam ne su fa sóoboo li bi ak Seexu Tijaan yëpp dañuy nekk ci biir baxru bi bàyyi rek kay feeñ foofu moo tax mu ne ko yow nag yonent yow si Ibrahima dem rawaanu yaay ruuxul wujud bi moo tax bàyyi ne man maay njëlbéen maa njëkkoon waaye maa mujj ba mbëggeel di am moo ñëkk a bëgg waaye bi ñu waree feeñalee mbëggeel moo ñëkk a feeñal mbëggeel radiyallahu moo tax mu ne ko nag yaay ruuxul wujud bi yow Cheikh Ibrahim yaay muñ mu ñu yàlla ñëkk a amal ci kaw ci kaw bi mais nag bi asriha si muutam mooy si muut yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yow nga yonent bi si xaqatu ibrahimiya amul jiitu ak njëkk ndax doo leen benn doo ñaar benn ngeen te bàyyee ko wax wa maa huwa illa ahmadun wa muhammadun te dafa wax ne damaa maa ngi dem xaayi bu di xuus di seeti Cheikhu Tiyaani mais fekk naa muy ahmad fekk fekk naa fa ahmad mais fekk naa fa ahmad tam ñaareel nga nekk te dafa jël kenn ahmad bi dugal ko ci kenn ahmad bi mu nekk benn ahmad kon Cheikhu Tiyaani moo doon foofu yonent bi bàyyi gi ne damaa damaa bëgg a doon jëmmi jëmmi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mooy ki nga xam ne mooy yonent bi waaye bi nga neexee ne moom mooy Cheikhu Tiyaani ndax wa maa huwa illaa ahmadun wa muhammadun illaa ahmadun parce que génne na ahmad dugal ko ci muhammad kon dara ne ku fi nga ne ko lan mu ne Ahmad déedéet Ahmad sax nekkatu fi Mouhamad moo fi nekk kon nag Ahmad dugg na ci Mouhamad Ibrahim dugg na ci Mouhamad kon Ahmad a fi nekk koy Ahmad mu ne la man maay Ahmad fa man raasa sahman fa huwa raayasun ila al-Mustafa al-Mansuuri fi kulli jaahili Mouhamad Misri na ko nekk si mooti yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moomu si nga nekk ruuxul wujud kon dafa doon mën ni ma sëkk mooy waqat sama fatxi ànda mahdi wa qad anat mu yaa mazharal asmaa yi yaay feeñuwaayu tur wi yàlla yonent si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam turam dëgg-dëgg bàyyi ba mu doom xaaji Abdullahi papaas ñi nga xam ne seen alquran soriwul mooy li may wax sànq rek ci ginnaaw ne bi bàyyi am alquran am ñu ko bëggoon a am amuñ ko ñu ne ko ah yaa waxoon ne de walaw balagu alfan wa zaadu fa innama saamiyom asmaaw gare zahimi buñ ma doon yonent bi nga leen tuddee sa doom yëpp ah nga ñëw tuddee kii Abdullahi parce que bàyyi nga ko tuddee bàyyi na wa innahu lamma qaama Abdullahi yaduuhu kaadu yakunuuna alayhi libadan kanaa ngeen a fàtte ne yonent bi turam dëgg dëgg dëgg Abdullahi la alhamdulilahi alladi anzala ala abdil kitab bañ ko signé téere bi Abdullahi lañ ko wooyee bañ koy reñaane Abdullahi lañ ko wooyee Mouhamadou Bachir na ko nag yow yaay feeñu waayu turi Abdullahi boobu moo tax ñi sëriñ bi dukkal ci ci néeg ñoom xam nañ kan kan mooy Abdou Zaati ñoom. kanziyatil kunuus. njaaraama garam nañ la bàyyi. yaa ñu tere desina soot. sidi baarama kanziyatil kunuus. ndeysaan njaaraama garam nañ la bàyyi. yaa ñu tere desina soot. sidi baarama baraya. bisango palmaan bi indi ngelamaan li. kulla reere labsi waylun sidi baarama radiallahu anhu kon nga gis ne moom Mouhamad Bachir na ko nekk yow yaay feeñu waaye turam waaye nag wa yaa muntahal ilmi yaay doy waat yaay doy xam-xam fa xam-xam xem Cheikh Ibrahim radiallahu anhu te wax naa ko léegi jàngul loo xam ne mun nañ koo téye na ko aalim nga allaama nga waaye la ma waxoon ne wala abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaawo iznun bi doon woy mi rek moo ngi layal wax ji bi noonu moo ko ne ko itam ne ubudatu abdullahi aynu siyaadati tasawada min maknuniha kullu sayidi Cheikh Ibrahim képp ku nekk sang yaa ko def sang sëriñ bi bàyyi ko def sang li mu am nii bàyyi moo ko ko may suñ toogee di ko màggal bàyyi tax ñu koy màggal kon la bàyyi waxoon ne shuuni dégg nga rafaatu lillahi euh, euh, euh, dégg nga rafaatul kulla lillahi sayidi sama mbir yëpp mu ngi yëkkatiku ñer yàlla ak sang bi dégg nga wa waasatil mahmudu baabul lataifi ak ki nga xam ne moom ma a dëggaleeg ñoom mi ci tiyaani miy soppe bi ki nga xam ne mooy buntu may moo tax moom foo wax rek mu ne cheikh aaxibu li ma am yëpp moo ma ko may mm. parce que sant na yàlla ci may ko ko yàlla may yëpp comme ni ko bàyyi santee waaye nag delloo na sant gi si bunt bi nga xam ne foofu la jëlee may bi moo tax loolu tamit dalay rayloo ki mu bëgg mooy kan Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ne ko nag képp ko nekk sang rek yaa ko def sang te dafa am benn sufiyanke boo wax ne mu ne bu nekkee ne jaam bi jàng na am xam-xam jum na sell na te xamul boromam nekk gu sang sang dëgg dëgg dëgg mooy ko dem ba jeex takk ci yàlla yaa ngi dégg góoreel boppam ci pay yàlla bi ko koy sang Mouhamad Michir ne ko nag képp ko nekk sang yow bàyyi yaa ko def sang parce que fa nit ki waree nekk sang foofu lay fekk sangee la ba nga set wecc dafa la ngay sang sama sëriñ da wax ne mu ne nit ki bu bu deeyee tey lu mu bëgg sang sang sang suñ ko yóbbee morgo wax ne kaay leen ma sang danaa bëgg nag dara gi foofu kaay leen ma ma sang waaye dina la sang dinañ la sang dinañ la yëkkati dinañ la jullee dinañ la yëkkati waat tam ba ci pax ma asfala saafiliin kon nag loo bëgg sang sang sang foofu la sang yam waaye nag bàyyi dalay def nga nekk sang ba pare te doo yëg sa sang gi sëriñ bi alhamdulilah yëgu sangam sëtu bàyyi la am na xam-xam jeex na ci yàlla mi ngi yare mi ngi ci lu bàyyi nekkoon waaye foo ko gis rek man tawaadaa lillaahi rafaahu llaahu moo tax waxtu nekk dafay yëkkatiku te loolu ci ñun ñi nga xam ne wala boog ñoo bokk moom génération am bëgg dem fi mu dem bëgg yegg fi mu yegg ñun lay jox exemplaire boobu noonu kon Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu tey jii nekk gàmmu Tayba mu giddoo ba ci taarix bu gàtt rek tënk wax nañ ne bi mu juddoo malaay bi dafa laaj mam asu jànq sëñ bi suma jumee nga gàddan ci ma waaye maa ngi ko déggee ci mu Moustapha Gueye mu ne da ko laaj na ko ana lan nga yaakaar sa doom ji maa jànq ne ko yaakaar naa si moom dina dem ba jamono ñëpp dinañ ko nangul topp ko waaye nag ci ñub baatu ñub rek la wax Malick Abdoulaye Niass radiyallahu anhu mu ne yàlla dogal na maa si jànq dund dund ba fekkee loolu yëpp mu ne papaas ne leen nag secret bi taxoon ma maasu jànq waxoon maa léegi ne ko dinañ dem ba ñëpp topp ko yàlla dafa def secret bàyyi fi maasu jànq yóbbu maa laaji mais bàyyi fi maasu jànq pour la mu warlaloon ci këram mu teg ci bëtam mu ne papaas moo firee noonu wax ji kon nga gis ne gidd na yaayam garantir ko mu war a def nasir comme ni ko borom xam-xam yi defee yaayam xacc ko na ko naanal zam-zam nga jàkkaarloog pénku nga ñaan mokkal alxuraan ñaan am xam-xam ñaan defee ko sa kanamu bàyyi ñaan rawee sa yi sa kanamu baay mu ñaan ko toog am xam-xam jàng ak mokkal alxuraan ci kanamu baayam am xam-xam ci kanamu baayam taalif téere wax nañ ne oustaz Baram bi nee na bàyyi ko nettali France bu ñu toog nekkee foofu ñoom ñaar mu ne bi mu bindee ruuxul adab ba pare jox ko malaaj yi malaaj dafa jël téere bi boobu li xew nii xew waaye ci ay këyit la ko bind nii rek jegele malaaj jël këyit teg ko si dënnam jooy jooy yi méttee métti diggante ak bi mu paree waxtaan ak moom tëj bunt bi ñu wasifa ñoom ñaar kese si biir néeg bi waxtaan mu dénk ko fa ay baat bàyyi ba ne korog la jubloog àddina te mus sa gestu korog laa jubloog àddina te man Cheikh Ibrahim musuma gestu loolu oustaz moo ko nettali wax ma kon mu jógee foofu itam ñëw def li ngeen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defoon bu nekkee da koo donn donn gi wér xam-xam bi leer na mu ngi tasaaroo yonent bi lu mu woon Euh, te dañoo wax ne wa xasaw bi maa xasaw uluman wa xasaw bi xikmati wa kasaali benn borom xam-xam musu koo wax bayti bu neexal mokkal la waaye maanaam bi si nekk mos naa ko wax kër sëriñ bi maa ngi koy waxaat fii benn borom xam-xam musu koo wax te kenn du ko wax ñu bëri dañ koy tari dem mais maanaa bi ki nga xam ne am na dégg-dégg moom xam na loolu ndax yonent bi lu muy la jàngul dara yow ñi fekk la ngay nàmp ñu xal sa dënn bàyyi dañ ko opéré bi ñu ko opéré paaka demul jibi téewul paaka téewul ciseau téewul dara dafa teg dënnam ci loxoom ci dënn yonent bi raxas xol bi yaa ngi dégg génne lu mu lu mu bi kassewat ko jugal mu dem nelawi ah te ñun Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu korog bi nga xamee ne moom lañ jaayante ak moom ñëw sëriñ bi na ko dañoo bëgg a tarbiyu jox ñu asgaar bu jox ñu asgaar yi nga dem jumaaja wala nga dem ñalaaneen wala nga dem sàmm coofak di wér du salaatul fatiha guddeeg bëccëg nga toog toog léeg sa yëg bi di dëpp ruuxa gi di tëb ndax set gi muy set ci bokkaale yàlla bi nga nekkoon ak réeré yàlla bi nga nekkoon ruuxu gaa yi commencé set di sentir boppam te ruux moo ëpp jëmm doole foofu foofu foofu ndax xol mooy mulkul aadaaya te xol lépp lu mu jël ci ruuxa la koy delloo ruuxa jox ko jëmm léegi nag nga commencé yëg sa xol bi dara yaa ngi dégg nga toog toog rek fëkk si dañ ne yaa de yàlla parce que lu mu lu muy bu la teroon yegg foofu noonu sëriñ bi ndax sa na la ko si benn semaine wala si ñaari fan gisuñ paaka gisuñ jaase gisuñ dara yonent bi nag noonu leen ko def kon bàyyi lañ joxoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la joxaat taalibe yi ci barkeeg muqaddam yi fi nekk nga bàyyi ne ñu ngi ko feesalee ginnaaw bi ñu raxasee loolu ñu ngi ko feesalee ay xeetu xam-xam ñu ñëpp xam ne ne yonent bi mu jógee foofu lu waxam mooy xadis alquran bu wàccee mooy firi ku ñëw laaj masala mu tontu te jàngut te aarifine yi amul benn taalee baay bi ñuy wax jox micro ne ko am waxtaanal muy jël kii ak fooy di xool kon li ngay wax fu mu jógee ko parce que dañ laa feesile ay uluma bàyyi ñoom dañ koo feesile ay ulum moo tax ku ko laaj rek dafay tontu direct ndax pays yàlla bi léegi lay lay gëtanteeg moom lay jànganteeg mu ne wa xashaaw ma xashaaw uluman wa xashaaw bi xikmatin aaya bu la firil rek dana la indil xikma dana la indil sharia kon ne xikma bàyyi noonu taalee bàyyi itam alxuraan fu mu ñëwee buñ ko firee indi la xikma bi indi la xam-xam bi bàyyi lu tax sëriñ si naan firi alxuraanam meloon ni firi alxuraan yeneen mais loolu sëriñ moom moom ci ëpp xam-xam ndax moom firi na alxuraan yaa ngi dégg maanaa yi lay wax ba tëj téere bi ne jagaar mun na góom rëcc na fii nii loolu fii yàlla bi muy jokkoog direct wa xisaaw wa xisaaw wa uluman wa xisaaw bi xikmatin wa xisaali moo ko may maqaama boobu noonu mu am te loolu wàccee na ko ci taalibe bi lépp lu mu am rek jox ko ñun oh. radiallahu anhu moo tax mu demaat tamit dem dem dem ba ci kanam kër ga fees comme ni ko gars yi di nettalee mu dellu ko si ndigal maam xalifa ëlbatiku ñëwaat lew na delluwaat ko si gis naa mbiri xam ne dañu bëri di nettali ne si bis bi mu gàmmu naan xaal bi tàkk na ku teg fi sa loxo teg nga si loxo yonent bi si la gàddaay ñëw mi dina Cheikh Ibrahima tey jàmbaar ja sa waay déglul ma wax la kuy barahama bàyyi moo juddoo Tayba dégg ñu ngi jégalu bu baax sëriñ ñu bëri wax ne si bis boobu noonu si la tàllal loxoom ne képp ku teg fii si loxo teg ko si loxo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Moustapha Guèye ne loolu amut Oustaz Baye Maane ne amut Oustaz Barham Diom ne amut borom xam-xam yu bëree bëri wax na am man dem naa Taïba euh, bi kii gaañoo sama benn ñijaay foofu noonu fekk naa wax benn pa boo xam ne pa Moussa Thiam lañ koy wax mu mu nee ne fekkee na bis boobu noonu fekkee na bisi gàddaay gi fekkee na tamit bis bi bàyyi ñëpp ko tukki dem màkk ci année boobu noonu si la bàyyi moom gaañu mu ne bi mu ñëwee ci gàmmu gi tàllal loxoom ba pare dafa génn foofu jàll liggéeyam yaayam bi mu jàllee néeg yaayam maasu jànq maasu jànq na ko ay Ibra gàcceel nga ma de ñi lewoon a toll li mu fiy dégg ni mu bëree aw ma fi yaay aw ma fi dara nga xëy di wax waxu dof yi mu ne ko mooy taarix bi bi ngay dégg Paanaati Caam di nettali naan ko ndax yaa ngi ko ko rek bu ñu yenoon laax bi di ko yóbbul sama bàyyi si tooli tay mu ne ko waaw mu ne ko fa xastalu nga daanu mu ne waaw mu ne ko bi nga paree soo mi turu laax bi turu mu ne ko waaw mu ne ko ba nga paree sant mu ne sa bàyyi laa sant ndax dama ne jële ji fee xaaji Abdoulaye bu taxutoon a yow sama wujji dinañ ma reetaan mu ne ko laax bi du sama bàyyi moo ko wallu mais man Cheikh Ibrahim maa ko wallu woon ñaata weer laa am sa biir mu ne ko ñetti weer laa amoon ñetti weer sama biir bi Mass Diankha nag dëggal ne kon bàyyi li muy wax ni dëgg la ndax ka gisum xaybu la fàddu nekkoon biiram ñetti weer di wallu laax dëgg ko nettali même jour même tel mu war a xam ne kon kii li mu ne yónent mooy yónent bi mooy Cheikh Tidiane mooy borom fayda bi dëgg la mu ne bàyyi may ngees radiyallahu anhu suñu maam mu noonu ginnaaw bi bàyyi jógee ko foofu dafa delluwaat kuusi daf fa semaine bàyyi ma ngees fekkat ko fa waaye xaalaatu fannaaw bàyyi ma ngees kuusi li ñu ko mën a dëggalee waaye fee moom dafa xaaloon rek seddaay ñu soo ko yóbbu kuusi mu ne tili loolu mu ne ginnaaw loolu nag def na semaine soo ko gàddaay ñëw mi dina te diggante semaine boobu ñëw ne mi dina ñaari yoon delluwaat kuusi soo ko ànd ak gars yi ñëw te fanaanu fi mu fi bàyyi maamu ñoom dégg nga omal laa taxara xara nga wax ne moo fi fanaan dem bu nekkee sëñ jàpp nga beneen bu gën a boobu nga wax ma yaa ngi dégg bi mu demee ay euh, waaw moom kii maa moom kii su lay càmm mu fanaan fi dem après bàyyi nag soog a sanc Medina kon nga gis ne sanc sa Medina ba pare aji nag dem fekk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy soppeem bi dëgg dëgg dëgg dëgg soppi kon nag sëriñ la waaye man na lim doon te xutbu la te mën na lim doon te du fardu kese du jaamee kese mais fardu ñu bëree bëri fardu lañ woon moom xam ma Malick Abdoulaye mun nañu wax ne fardu la woon ci jamonoom ndax lii bàyyi am tey xutbu gii wax nañ ne suñu sa maam Mouhamed mi nga xam ne moo jur Malick Abdoulaye daan na ko ñaan wax nañ ne Mame Rida ñaanoon na ko wax nañ ne Mouhamed Niass ñaanoon na ko ñu ëlbatiku Malick Abdoulaye daan ko ñaan ñaan di féegee ci Maalaaji waaye nekkate ne maam Ibrahim ñaanee woon yonent yi sax si ñebootam nekkate maami Cheikh Ibrahim maam Mouhamed Niass itam ñaanoon na yàlla xut bi Cheikh Tidiane di wax sax si njabootam yaa ngi dégg waaye nag boobu moom nekk nekkutoon taaliba Tidiane ndax dégg nañ ci taarix ne am na benn doomu malaaka bu ñëw tàggu malaaka yi ne ko damay tàggul malaaka def na yaayam sama baay bu génnee wax ko ne euh, ko ko wax fu ma dem nañ ko fi ma dem mu dem ziyaare ji maamam ñëw indaale suuf bi malaaka génne na ko yow laa dafa nga delloo sa suuf bi maam ji fële yow Tidiane nga mu ne ko jël ko ma tarixa bi dama ne ko fii ku fi gudd rek Tidiane nga kon jurul ku nekkul jigéen radiyallahu anhu kooku nag moo jur Cheikh Ibrahim mas jànq mooy yaayam sëriñ la mooy maamu sëriñ bi mën na sëkk jàngale na xamle na yare na dégg nga yàlla na jubale na jubal na te li gën a foor ci ooteem mooy li mu gën rek ne wa mutaqasdi fihimu an asuqahum ila xadrati bari rahim ilayna gars yi yaakaar ne ah waa ji de mënul lii li mu wax ni mënu ko ñu bëri weddi ko ne déedéet mu ne ko mu gëstoo fële ne leen tawitu wasaxal tariq ila alxaq li kulli muridin rasulu bi xaqa ñu ne ko déedéet mun mënta nekk tawitul maadixina dégg nga jamiihim tawitu aarifina lemal naa leen yoon ñi xam yàlla lemal naa leen yoonu tàggkat yi lemal naa leen yoonu dégg nga bi jëm si yàlla jafe-jafe yi si nekk yëpp lemal naa leen ko ñu ne ko déedéet mënta nekk de mu ne kafetu bi sixaabi fi tariqi ana fa kulluhum bil gis bi naa la mun a bayti boobu moo tontu ñaari bayti yële si ginnaaw ma wax léegi nii ndax fee doo ko wax wal ummatu qasli fii waa am su qawm gisuñ ku mu wax ne li ma wax nii am na ko danaa ne li mu itteel man bàyyi rek mooy ummat jaami sëriñ bi mën naa toog fii ne li mu itteel mooy may Ousmane cent mille francs léegi nii am problème mais mën na ma ko bañ a jox waaye nag mu xëyaat ne ah li mu itteel nag mooy lem yoon bu jógee fii ñëw ba mit la jox waaw sama rek cent mille francs bu ko neexee dañ ko def waaye xëy na nag cent mille francs yi ma doon wax nag jox naa ko ko kafaytu bi sahaabi fi tariqana fa kulluhum bil jazbi naa la mun a ah, yoon jafe-jafe yi ma leen waxoon te fekk naa ko ah nga ne ma déedéet du dëgg de ma la xay fa kulluhum bil jës bi ñoom ñëpp sama taalibe yi ñi ngay dégg ne samay taalibe ñoom ñëpp ku nekk si moom jot na càkku ci fam si jës bu moo li jës bu yow Cheikh Ibrahima radiallahu anhu mu ne bëri tu eh, eh, dégg nga dégg nga bi israaki wa shakki wala wanaa bi xub rasulillahi fi lbaadi wal qurbi yonent bi moo ma déggal si bokkaale kon war na nga xam ne am nañ ko nit ki lu mu amul du ko mayee comme bi mu ne yonent bi déggal na ma si bokkaale rek xam nañ ne bàyyi moo mën naa dangeen jaami ci bokkaale yoon si bi da ngeen dama sikk saako xam nañ ne da ngeen sikk saako loo ko may ma ne si mbëggeel moo ma ko may moo tax mu ne mbir bëgg ak dëgg moo lay may mooy tax nga jot si sa càkkutéef moo ne nag ñoom jot nañ seen càkkutéef si fan si si si jës bu waaye nag ki bëgg jot sa càkkutéef dëgg-dëgg mooy nag fa asgaru atibaayi uniilu fanaa maa ngi koy dénk sama mbokk ndaw yi ma tegee foofu mooy fee dafa wax ne kafeetu bi saxaabi fi tariqa anaa fa kulluhum bil gis bi naa la mën a loolu mooy xam yàlla dama ne rek am fat mu jeex nga yegg ci yàlla wéddu ba sa yaram tàng jër kiiraay yi dagg nga xam yàlla am nga fat ko ubbi nañ la kër gi rek mais xamoo li ci kër gi waaye nag fa asgaru atibaa yi uni li fa naa ki gën a tuus sama taalibe am na jeex takk ci yàlla mooy nga laa leen gii ngi nekk dugg nga daara gi xam nga la fa nekk dugg nga nekk sëriñ bi dugg nga ci jumaa ja dugg nga ci otom bi ñi fi toog xam nga leen loolu mooy uni lu fa naa te dañoo wax ni ñu ko am bëriwut kon nag ñi ngi ñaan suñ mbokk ndaw yi buñ tarbiyu toog waaye nañ tarbiyu dem dox séeru ndax ñu mën a am fannaaw te bàyyi dafa wax ne fannaaw mooy lan mooy nga dem ba xam yàlla soo jógee foofu xam yonent bi soo jógee foofu xam Cheikh Tijaan bi soo jógee xam sëriñ bi soo jógee foofu ñëw si naaso dara amu fi de waaye fii ngay liggéeyee lay jëriñ payé soo paree nga nga delluwaat zaatu mu ne lii yëpp ay maratib lay waaye liñ bëgg mooy nga dund jëmm yàlla ji moo tax boo demee ba am loolu rek ñu naan yàllaay kese daal di bàyyi kese xam na ngeen ci bi xam ne yëpp mais yàlla moom la ñuy moom rek la ñuy dund moom kon nag yëg googu nag ma tegee maqaam boo xam ne sëriñ bi bàyyi am na ko si am gu wér yoon si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kese la ñuy tudd ne sallallahu alayhi wa sallam moom rek la ko yàlla may yonent yàlla Moussa dégg ko ci rek sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëw nañu nag sallallahu alayhi wa sallam googu nag de képp ku ko waxul rek dangaa gàttal ñu sama xaq kon nag wax ko bu ñu Muhammad rek gaawal wax sallallahu alayhi wa sallam boo ko defee da ngaa gàttal ñu sama xaq cheikhu Tijaani ñëw ñu ne cheikh ñu ne radiyallahu anhu di ko ñaan yàlla ngir maane yàlla yooyu waliyu yàlla yi fi jiitu woon ñuy fi woon de waaye nag radiyallahu anhu nekkutoon farata si ñoom nekkutoon sunna si ñoom mais cheikhu Tijaani yi mën misaal damay misaal waxuma ne sunna la de misaal ne la si moom ndax fu mu ko waxee rek su ma naan cheikh Ahmad su may noppi rek nga ndax tëbb gi moo la koy forcé Cheikh Ibrahima radiallahu anhu nekk moom kenn du ko wax radiallahu anhu kenn di ko wax sallallahu a wa waaye boo ne Cheikh Ibrahim su may nopp nga naan ma ñes parce que da nga koy yëg sa xol bi ndax li ñuy indil mooy xissan faiqan ahla niyati wa salaamu aleykum allah <laughs> jërëjëf Cheikh Ousmane waxtaan bi am na solo neex na fàttali la nga ñii luñ fàttewutoon muy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nga xam ne duñ ko fàtte mukk ji suñ xol yi waxtaan ak ñu waxtaan bu am solo bu tegtale bu jëriñ ci Cheikh Ibrahima su waxal ñi mooy kan wax nga ñi mooy kan loolu sant yàlla la lim am wax nga ñi ko wala wax nga ñu ci lenn ndax li mu am yëpp bari kenn mënu koo dajal wax nga ne mooy ruhul wujud Ibu Juuf nee na ko ruhul wujud bi ñes jaaxal nga Ibrahima Juuf waaye ma ne kudut Ibrahima Juuf sax jaaxal na ko hmm. jaaxal nga Ibrahima Juuf ka nga doon sañuñ koy wax feneen mi ne bu ma ko waxoon bu ma waxoon lu bàyyi doon kon suuf seeg asamaan si dañuy takkaloo moo tax waxu ko ndax xamu ko yàgg na koo laaj nag na ko wax ma wax ma sa bopp feneen nee na ko biddiw jawza bi yaa fenq maxrib daal di leer kanzul ul kanzul ulum wax ma koo doon waaye bàyyi daf na tekk rek kon jërëjëf Cheikh Ousmane yàlla yàlla fay la ci barke yonent bi sallallahu alayhi ak ne loolu mooy li nga wax rek وما هو إلا أحمد ومحمد وما هو إلا ما وراء الأخاوين wax nañu feneen ni mooy Cheikh Tidiane wax ñu ne mooy yonent waaye bàyyi dem na ci yàgg ne illa ma waral a xaawili kanaa foofu la Ibou doon junj rek ne bu ma leen waxoon lii bàyyi doon kon suuf seeg asamaan ni dañuy takk dañuy takkaloo kon jërëjëf yal na yàlla fay la yàlla yokk la ñu ngi gërëm soppe yi teew yëpp di kontaan ci seen teew bi bu baax a baax. Mm-hmm. Seydou Aliou Cissé nga xam ne suba ba tey ñu ànd ak ñun te waxtu wu nekk ñooy indu guddeeg bëccëg suba ngoon heure bu bàyyeekoo Dakar ñëw fii ñu gërëm bu baax ci taxawaayam bu baax ci ñun ak dimbali gim ñi dimbali rek te yàlla tax di gërëm sama nijaay Cheikh Abdou Salam di gërëm Ibra Fall bu Xadim mm-hmm. Cheikh Mokhtar Fall di gërëm Cheikh Ousmane Niass sama rakk sama xarit sama rafiq dar bi ak mboolem ñi mu àndal délégation ñi mu àndal ñëw yëpp xamee ci Mansour ñu gën koo xam ci Zobaay ak Cheikhul ak ñi ñu ànd ak macha allah ànd def ca Madina waaye Cheikh Sidi mi waxoon na ko maamalaay ji dafay def fële daayira ñu laa ne mu oo ma téléphone na ma sama daayira bi ma waroon def sama kër fomm naa ko hmm. fomm naa ko dinaa ñëw sa daayira bi. ñun ak ñëpp ñi àndoon jugee Dakar dinañ ànd ñëw ci daayira bi màggalee foofu bàyyi si sa wet loolu mbaax la rek ak mbokk mu baax moo koy def yàlla yàlla fay la jëf jooj mi ñu na yàlla yokk la zaahiran wa baatina bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm yàlla macha allah nekk ku baax a baax a baax yàlla yàlla fay ko yàlla yokk ko bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa gërëm mboolem soppe yi waaye ñuy gërëm eh, ajjuma jóob di dëkk fii ci ñu laaneem di ko bëgg Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu di ko bëgg yàlla nga xam ne moom fii mu dëkk wéetoon na fi lool wéetoon na fi lool ci faydu waaye tey alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi koy seedeel suñ dëkkandoor la fii ci ñu laaneem muy ajjuma jóob bëgg bàyyi lool nag njabootam bëgg bàyyi mu nàndal leen ci bëgg bàyyi yàlla yàlla fay bu yàlla dëgëral ko yàlla barkeel njabootam ci zahir ak ci baatin bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suma xarit sama soppe suma njaatige ci Dakar mu cheikh Mouhamadul Mamoun Seck mu xaddam cheikh macha allah moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax ñëw na ànd ak délégation bu rëy ay rakkam ak ay soppeem ñëpp ànd na ñoom indi ay zikarkat yal na yàlla fay ko yàlla yokk ko ci barke bay ñi gërëm euh, Seyd Aliou Kouta moom itam ñëw na ci daayira bi yal yàlla fay ko yàlla yokk ko ci barke Cheikh Ibrahima Niass waaye ñi gërëm mboolem zikarkat yëpp ñu ngi leen gërëm ñëpp gis nañ leen jiital Cheikh Ibrahima Cheikh Baye Ngom ak mbooleem ñi fa nekk yal na yàlla fay leen ak gërëm dañ gërëm Cheikh Abdoulaye Sine xam ne ci suba la ñëw bàyyee ko fële ci sukkata ñëw ànd ak ci daayira bi ñuy màggal ba yàlla yàlla fay ko ñuy gërëm Cheikh Ahmadou Thiam ak soppe bi mu àndat yàlla yàlla fay leen yàlla yokk leen ci seen teewaay kontaan nañ ci lool lool lool ak mbooleem soppe yi yëpp yëpp yëpp yëpp kontaan nañ ci ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñuy gërëm Badou Baw di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk ko di gërëm mboolem soppe yi suñu yaay ak suñu mbokk yu jigéen ñi ñëpp rawatina ñi nekkoon tey ci waañ wi di togg yàlla na yàlla fay leen mm, ñëpp gis nañ leen seen coono yu ngeen daj waaye sonn ci juddu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu loolu yokkute la mm-hmm. yokkute la yokkute la yàlla yàlla fay leen ci barke Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu maa ngi gërëm Cheikh Ndiaye yi nga xam ne mooy borom rajo yi mm-hmm. nit ku baax la nit ku bëgg baay la nit ku bëgg yàlla la nit ku bëgg ñun pay bi la nga xam ne heure bi ma ko waxoon sax ne ko moom la ñuy tàmbali passé na bu yàgg heure bi ma ko waxoon ne moom lay jeex passé bu yàgg hmm. mu toog ba heure bi sa waxul dara loolu mbaax la yàlla na yàlla yóbbu ko hmm. ci barke Cheikh Ibrahima na yàlla jox ko ay matériel hmm. ay waruwaay lu nekk barke njabootam ci zaahir ak ci baatin barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ndiaye kontaan nañ bu baax a baax yàlla na yàlla fay yàlla yokku la waaye gërëm Cheikh Sall Baye ñu koy gërëm muy papa muy Berkane Média ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla fay ko yàlla yokk ko ñu gërëm mboolem ñi ngi seetaan ci àddina bi yaakaar naa ñooñu laa euh, jot a gis ñi ma gisul ngeen baal ma xam ne làmp bi moo ma jëm ba gis ñi ca gannaaw waaye yàlla yàlla fay leen yàlla yokk leen gërëm ñu ñaan yàlla euh, euh, dëkk bii muy Wilane yal na ko yàlla barkeel yàlla fi yàlla def barke yàlla fi yàlla yàlla fi yàlla def naataange bépp barke boo xam ne bi ngi Medina bàyyi yàlla na ko yàlla sédd dëkk bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def bépp semb yoo xam ne sémb nañ ko ci dëkk bi yàlla na ko yàlla àggale jàmm te bu mu manqué euh, te ñu fekkee ko ni niñ fekkee euh, niñ fekkee tàmbali yàlla nañ fekkee dem ba mu ràpp hmm. ñu koy xoolal suñu bët ñun ñëpp te bu kenn manqué yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla dem ñu ñaanal xalifa bi yal yàlla guddal fa daf may ko wér ñaanal imaamul akbar ñaanal suma sëriñ Seydou Mawlaay Cheikh Abdoul Aqab Cheikh Ibrahima ñaanal mboolem njabooti baay ñaanal mboolem Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm ak xéwal ak naataange lépp luñ bëgg rek yàlla yàlla defal ci barke Cheikh Ibrahima Niass ngeen baal ma rek damay jox Cheikh Sidi Sarr mu jàngal ñi afis ak xasida bi mu jeexee rek ñi tëj tawasulu ci tawasulu ba defoon ñaanee ci yàlla yàlla fajal suñ boole ma aajo jàqare yi nekk ci xol yeeg yëpp yàlla dindi ko jafe-jafe yëpp yàlla dindi ko bu paree rek ñu tëj incha allah juddu bàyyi la ndax jaral nañu ñàkk na la waaye fan fan ndax jaral nañu ko ndax moo ñu moo ñu sobel kon Cheikh Sidi euh, Nazir Nazir Diouf maa koy gërëm bu baax nga xam ne nga xam ne ne amul jot euh, ma nga fële ca kër bu jibel nekk foofu ci suñu kër bàyyi ñees almarhum waaye nekk fa nekk koo xam ne lépp lu ñu def ci jumaa ci jàngaar xuraan ak yu bari moo koy taxawee bi ma ko waxee lii na ko dañuy dem zikkar màggal juddu baay bi dafa bàyyi itteem yépp dépare Kalbi ñëw ànd ak suñ doom aas ñëw fii ca ngoon la ba léegi dëgg dëgg loolu baax la Cheikh Ousseynou kontaan nañ trop mm. yal na yàlla fay la yal na yàlla yokku la yal mm. la ci zahir ak ci baatin mm. bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu jox Cheikh Seydi mu jàngal ñu après après ñu bëree ñi tëj jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Baye Niass أغث أغث يا مغيث الكون لي كربي بالمصطفى المرتقى بصورة العربي أغث أغث يا مغيث الكون لي كربي بالمصطفى المرتقى بصورة العربي

Talla leen defal en replay Gamou tey benn seen édition 2011 ngeen am aussi page yi Barham Universel Media da ngeen jot euh, lépp xam ne xawoon na fa jamono yi Cheikh Mamoun nga xam ne moo nekkoon porte parole bi ak Khalifa euh, Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahima Niass ñoo xam ko 22 minutes incha allahu rabbi ci page Brahim Universel Media ñu jox rendez-vous ba ñu weesu asalaamaaleykum wa rahmatulah